jamono metti lool ci ñi nga xamante ni nii ñoo di famille gannaaw ba nga xamee ni liggéey yu bëri coronavirus bi daal na ko gàllankoor loolee la daam mi di dund di ab chauffeuru taxi moom mile toogoon ay jamono rek liggéeyul fi mu nekk nii jafe na lool ngir bëgg-bëgg njaboot gi ñeel tabaski bi mu matal ko. xale yi de moom wax dëgg yàlla xotti guma leen ba leen a ñawal. arme moom matagul. man sama liggéey chauffeur taksi fii nag metti na moom ndax dëkk bi moom taxi yi bëri na. dëkk bi yoon yi métti na daal metti na waa daral de léeg-léeg ma yóbbu fa client de waaye man sama bopp daral taxumaa jóg. si naaj bu tàng lañ ko fekk moom mi mu di coxeur waaye la mu jàpp rek moo di ni ci tabaski bi la mu mën rek rek lay def. moom moo ma yóbbu xar ma ko yaakaar rek dénk ko sëñ Tuubaa rek. man sa wóor la mais temps yoruma alhamdulilah mais temps yor moo ak lu mu métti métti jamono itam lu mu tartar na ñëpp demaat liggéey moom mi loolu daal mooy xalaatam. bis bi metti na dëgg la nit ñi sonn nañ waaye nag jéem a takku góorgóorlu liggéey fàtte li nga xam ne moo weesu woon man moom loolu laa fas yéene képp koo xam ne damay wax ak moom laa bëgg ñu nekk ci. jéem a def loo man rek ndax tabaski sunna la ñun nag. Euh, en tout cas bari na ci coono yoo xam ne aussi ñoo koy teg suñu feebar bi le daal mu mel ni indi na ay coppite ci tabaski ren bii li nga xamante ni nemmeewu ko woon nañ ko mu di xumbaay loolee daal dafa mel ni nar na soppeeku ren ji waaye nañu ko doon amale itam dara du ci changé.